wala bokk ci nguuru Macky Sall la ko jëlee ñu gis Thérèse Faye tamit moom génn ne da yóbbu ci yoon ban jàngat nga am ci li Cheikh Bara wax yëkkati ko teg ko ci nga xamante ni moom mooy euh, Thérèse Faye waa xam nga euh, Cheikh Bara mm-hmm. lu mu la wax dee ko seetlu mm-hmm. lu mu la wax mm-hmm. du waxantu mukk su la waxee rek seetlu ko te loo ci gis man ba ma gisee lii euh, Sonko war a def dem ci dëkku yenn dëkku Afrique yi. Mhm. visiter leen. visiter leen est-ce que Cheikh Bara sax soqiwul loolu dëgg ba ca nekk est que soqiwu ko sax. Mhm. parce que moom moo ko jiit. am na dëkk yoo xam ne Cheikh Bara daf fa dem. Mhm. pour ràññee ba xam ndax Pastef bi ñuy wax am na fa wala déet am na ñoo xam ne Cheikh barab waaw ba mu fa demee la ñu soog gis. teeru bañ ko fa teeru. man suivre naa ko. wax dëgg fa yàlla mu nekk dafa meloon ni envoyé boo xam ne nii. Mhm. Sonko moo ko wax na ko demal ma foofu. Mhm. ñu teral ko fa teral boo xam ne moom ci waxam daf ci yéemu. dëgg la di. Mhm. dañ koy faral di bàyyi xel ci ay waxam. mais wax jum wax papa jëmale ci Thérèse Faye. bon waaw aussi bu fekkee ne wax ji naqari na ko. wala am na lu mu ci gis loo xam ne nii war na ko mën a porter plainte. elle est libre. Mhm. waaw man bu ma doon moom nag. waaw wax yooyu sax du ma jaral may porter plant mais bu fekkee dafa jàpp ne dañ ko wax xal loo xamante ne nii. non lan dëkk aussi. fii nga dëkkoon ak waa man. yore woon dara tey boo yore ay milliards war ñoo mën a xam fan nga ko jële ñu bari dañu yem ñoo xam ne nii sax lakk nañ seen kër ci taxul ñu porter plainte. Mhm. moom nag d'y voir des choses peut-être ah. qui pas existé et peut moom daf ko frustré. Mm-hmm. wax jooju. Mm-hmm. bu demee tey ci yoon. waaw libre na. Mm-hmm. dem ci yoon. waaye bu ma doon moom. waaw wala mu nekk conseiller ma. ci comme mu sant ma ko. man damay fab wax ji rek lem ne pat parce que yàq ko. yàqul dara ci jëmmam. yàqul dara ci nekki nekkinam mhm. waaye dafa mel ni moom it dafa fab politique bi mhm. jiital ko ah bon man lay def lii mhm. dafa may wax rek tey naa ko yóbbu ci yoon kii wala ñenn ñi naan ko yóbbu ko ci yoon ah. gisoo li mu la waxal nangam nangam comme ni ñuy def ay Aïssatou Diop rek tout à fait nañ ci ñëw après waaw d'accord ci yenn wax yoo xam ne nii ñi ko ko wax ak di ko nettali. Mhm. ñii di ko envoyé vidéo. Mhm. xam nga réew bi moo jaxasoo. mais si tamit tamit papa Thérèse Faye loolu am na sax ñu ne dafa nekk fierté ci moom ndax nit ki nga xamante ni daan fekk ci néeg bu ndaw moom ak borom këram tey bu demee ba mënal boppam wala ma am kër est-ce tamit loolu nekkul benn fierté bi nga xamante ni ci moom la pas mi ne day dem ci yoon bañ jàngat aussi nga am ci ni nga xamante ni ñu ngi koy wax aussi. la la ko la ko tax a toog. Mhm. ba bëgg a porter plainte. je te jure am na ci ñu ko wax ne ko kii daf la yeb mm-hmm. yóbbu ko ci yoon parce que nekk fii di mbel mbeli te xamul la tey xamul la ëllëg mm-hmm. jox ko courage boo xam ne bi suxlu la loolu mm-hmm. parce que bañ topp yenn yi pour ñoom surtout ci jigéen dafa naan non ñuy li ma wax dafa ma bëgg a yeb parce que ñu bari wax nañ ma loolu yóbbu ko ci yoon danga ko yóbbu ci yoon waaye xam nga yoon. Mhm. nekk lu fi kenn rek. waaw mun nga ñëw porter nit plainte. Mhm. leen dema dema dema dem ba plainte boobu jur leneen loo xam ne séntuwuloo ko ci woon. Mhm. kon bu nekkoon ne danga jàpp que ni mu bàyyi mu sedd. waaw mooy moo gën parce que moom mënu weddi ne nguuru ki sàll mi ngi ci woon. kon donc mën nañ ko xalaatal lu ne. moo tax olof di wax naan booy ànd da ngay xam ki ngay àndal kan la waaw. wolof wax na ko di dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es. tout à fait. Mhm. xëy na tekkee wuñ ko noonu ci wolof. Mhm. mais loolu mooy tout simplement wax ma ki ngay àndal ma wax ma ki nga doon. Mhm. mën na ci ne Cheikh mën na wekku ci wax wax ma koy àndal ma wax la ki nga doon. fekkee ni ki ngay àndal. waaw set na. kon yow damay gént ni borom loxo bu set na. parce que kenn ku ne ku baax ka ngay àndal. ci image kooku lañ day seetal. d'accord lañ seetloo. Mhm. ba lu ñu naan la sax. Mhm. yow bul ànd ak kii. waaw parce que rafetul ki turam yàqu na deram yàqu na nanga. Mhm. kooku gis nañ ko ci dëkk ba. tout à fait waaw. donc man su ma doon moom. ma noppi sax ne pat. soofal wax ja. ba ñu am ñu ci wékku. ba di ma ko tooñee wala ñu ma koy xasee wala ñu ma koy sax xoolee. parce que fii bari na yu fi xew mais bu ñu seralul woon. waaw Sénégal dina toj. d' accord euh, bu doon mooy moom maanaam mu euh, tëj wax ji mu bañ bàyyi mu sedd mais dafa mel ni tamit dafa bëgg lu leer ba nee na sax jël na avocat euh, maître El Hadji Diouf comme ni ko nit ñi di waxee moom sax ci boppam nee na moom mooy avocat di peuple moom pare na pour mu nekk avocat am ci loolu ak li ko seex baara waxal bañ tàkkat aussi nga amaat ci loolu. waaw xam nga. maître euh, sama xarit la. Mhm. vraiment man maa ngi ko naw ci benn geste bu mu mosoon def. Mhm. Euh, boobu fekk na ñu def émission ba pare. Mhm. Mm, ñu du loo xam ne mën naa ko sàkk wala mu ko ci mbaaxaayam rek. waaw nga ñëw yëkkati nuyu ma. aussi ci li may wax ma nit. bu defee doonu waaw daf damay wekki yoo xam ne nii peut-être buñ ko ko doon tuumaal. ma teg ko carrément. Mhm. parce que damay jugé ne kii. Mhm. xool ba dara nekku ci. Mhm. parce que joxe dafa metti waaw lu mu ndaw ndaw ndaw nga yëkkati tokk ci loxo nit. nit ki laaju la. da ñëw rek euh, teg ko ci loxoom. parce que xëy na peut-être que approuvé nga ko. wala gis nga muy def yoo xam ne neex na la. du seen waxtaan mooy yàq wax jooju. mooy yàq nit ki nga doon ci moom. mais tout simplement il reconnaît. ta gentillesse il reconnaît l'homme que tu es. d'accord bañ laa bañ topp wax jooyu ñu lay. Mhm. wax bu fekkee noonu nit ku nekk. Mhm. wax rek ngay topp. Mhm. kon defe naa fii ñi fiy xulóog ko xeex dana bari. ñi nga xam ne nii dañuy jépp ni sax. gën a bareeti. ñi nga xam ne dootuñu àndatee kenn. day si mais nanga ko xool ci say faits et gestes yoo xam ni. Euh, seq nga ko ak moom bu fekkee ni sequ leen dara. bon nga bañ koo xam. parce que comme parce que la ngay wax. waaw bu fekkee ni wékkul fa nga xam ne nii nit ñi ña ngi fay gisee. Mhm. mën nañ la juger boo xam ne nii ne la yokkat ak ki nga xam ne moo wax wax ji. Mhm. benn ngeen. d' accord ñeex ak ñaax la ñuy wax. d' accord bon euh, su fekkee nag yow génn nga sa bopp ci wax jooyu mhm. euh, euh, moom ci boppam mu yeyoo wax ji. ak yemboo wax ji. wala ñu waxal ko ko. dana am jugement bu baax ci yow xam ni yow xasoo ko wala bu xas amee it doxewul ci yow. d' accord nga neutre ci wax ji. Mhm. parce que yow la nga xam ci moom rek ngay mën a wax. d' accord waaw mais tamit lu Thérèse Faye wax papa ba dane day jël avocat ki nga xamante ne maître El Hadj Diouf. Mhm. est ce que am nga yaakaar que ne loolu dina mujj fenn. ku raw maître El Hadj sax. waaw mën na ko jël. parce que la ko naqari bu ko naqaru loon du jël avocat. Mhm. bon li ci spécial peut mooy. Euh, maître El Hadj Diouf nga xam ne euh, tudd nañ ko fone ne. kawee nañ ko fu ne. tamit bëggul wax ji tamit comme ni nga ko wax sànq say biir wax nee nga euh, da nga jàpp que ni li tax mu bëgg a yóbbu ci yoon moom Cheikh baara danga jàpp que ni politique la est-ce nekkul bi ci dugalee ki nga xam ne mooy maître El Hadj Diouf ñi nga xamante ne moom la ko sénégalais xamee damay dégg sax ñu bàyyi di ko wax naan moom sooma sookat la ak yu demee noonu est-ce loolu la ci bëgg moom moo tax mu préféré jël ki nga xamante moom mooy maître El Hadj Diouf pour mu doon avocat am. kan moo bëgg show bi. Euh, ki nga xamante ni moom mooy euh, Thérèse Faye maanaam est-ce que bëggu ci coow comme ni nga ne sànq politique la est li tax mu choisir ki nga xam ne mooy Maître El Hadji Diouf bëggu ci loolu maanaam wax ji gën a mun a kawe. waaw xam nga. waaw le fait que choisir. Maître El Hadji Diouf. Mm-hmm. man loolu moom laa lay wax sànq ne la. waaw ka tànn pour mu doon avocat am. Mm-hmm. wala avocatam. waaw moom moo ko xam. Mm-hmm. dayoo wax ji. xëy na am na sax ñoo xam ne ñooy ñëw di proposer seen bopp. tout à fait bu fekkee ni yoon am na. Mhm. te ñu bëgg ko yóbbu ci yoon. Mhm. seen wax. Mhm. ku ci nekk yow libre nga ci choisir sa avocat. la tax nga koy choisir nag yow yaa ko xam. compétence mën na lu yóbbu ci moom. xumbam xumba xumbam nga xam ne lu mu téye. waaw xumba xumba boobu ci la ñuy. foofu laa bëgg a waxee tout à fait foofu laa bëggoon waxee. waaw donc am na yu ci bari yoo xam ne nii. la tax nga dem jël. avocat. Mhm. yaa ko mën a gis ak sa raisonnement bi nga am ci moom. léegi nag quant à ba juger avocat bi ci boppam. Mhm. kooku mënuñu ci dugg du ñu àttekat. waaw pour xam moom. Mhm. capacité bi fan la yegg fan la kii. li ma mën a ràññee rek xam naa ni borom xol bu yaatu la. waaw kooku moom buñ ko doon dugal ci ci bax ma taxaw. su ma ko séddeewul loolu. xol bu yéwén la am. xol bu baax bu yéwén. c'est pas parce que tell tell yi ñii nit ñi di dégg. Mm-hmm. ak euh, xam nga avocat moom euh, li muy joué. Mm-hmm. ce n'est pas parce que moom loolu la doon. loolu la mel mi ngi mel ni artistes yi rek. man joué naa mm-hmm. ay rôle yoo xam ne nii. suñ ma doon jaawaleeg rôle yooyu. waaw mais du baax ci man doo mën a jaar fenn te damaa ami njaboot. avocat bi c'est nit ki ñu tooñ aussi tamit parce que juge nañ dañ ko tooñ. moom mi war a yóbbuwaate ci yoon. na xam ni du ka muy yóbbu ci yoon rek a am. na xool njabootam bi nga xam ne ñoo tax làqu ci ginnaawam. Mhm. te waxantewu ñoo ko moom. d' accord mais Cheikh Bara ñu tamit papa ñi nga naan est ce que jaroon na muy génn di wax loolu tamit. kookan la. Cheikh Bara am na ñu génn woon muy naan di wax démb jaamur aussi am na ñi nga xamante ni ñu ngi ko ciy balaame tuuti. waaw xam nga. waaw fii Sénégal la. waaw gis nga li ngay gisee da koy xool ci ñaari opposition. Mhm. maanaam ñi nekk au ak ñi nekkul au pouvoir tout à fait te far mm-hmm. réew mu compliqué ngi noonu soo deful ndànk yow mi nga xam yaay seetlu seen i mbir mm-hmm. da nga dugg ci ay rëq-rëq d'accord baa nga dugg ci xaabaabal ba nga xam ne nii mm-hmm. la lay ci xaabaabal bi sax yow doo ko xam parce wax moo mel noonu dafa diis kan wax kenn mënul taawu mbaggam bu génnee ci làmmiñ mm. amatul mbagg mbagg moo koy wutal sax. Hmm. boo ko ci tegee. Hmm. day doy waar. du mën a mi ngi mel ni un rôle. Hmm. de méchant. buñ ko amee. dañ lay xool yow ci ay jikko ci ay réaction ndax niveau méchanceté bi ñu bëgg. mi ngi ci yow mi ngi ci yow wala déet. waa El Hadj noonu la mel. li muy xumba xumba xumba ba ni ñi naan waaw dafa rëy làmmiñ hmm. ñi naan non hmm. dafa soof lu ne mu dugg ci nangam nangam hmm. est-ce qu'en réalité El Hadji Diouf noonu la mel d'accord soo ko naree lay sol ñëw moom pour wane lii dama ko bëgg a gañe ndam lay wut donc lu la ndam li may ci lu nit ñi gëm la ci daan foog nga wuti ko mooy mbër mi dem ci làmb su demul ci koo xam ni maa mën boo xam ne dina ko wutal gàllaaj yoo xam ne nii mhm. bu demee waaw fa ñu gisee ndamam sax xëy na ñu bëri dina leen rëcc mhm. waaw loolu yëpp dafa nekk ci wutum ndam d'accord c'est-à-dire Me El Hadji Diouf boo ko naree jugé ci nit ku mu doon mhm. foog nga def attention lu ko mooy ci rëq-rëq jugement ngay dugg d'accord parce que avocat la mbubb bu ko neex mën na koo sol mën na dem ba foofu tout suite nit ñi yaakaar ni tey bu ñëwee fii toj mu ñëw ser la système lay wut ak ay stratégie mhm. ñoom loolu la ñuy wut avocat pour gagner seen procès mhm. donc fu ñu dugg loolu la ñuy wut ah. mun na ñëw fekk sax yow amoo dëgg ñu wutal la dëgg mhm. moo tax nit ñi di wax naan yàlla bu yàlla def avocat à ma vie parce que nit ñi gis avocats yi di doxale wala politique gu avocat yi parce que ñoom ñu ci bari ñuy dugg ci politique ah tout à fait waaye ah. te boo leen jugé nag ci noonu nañu mel gis nga balaa ngay xam seen kii rek am na salle boo xam ne nii ñu defee seen i audience ak yooyu ba pare. foofu la ñoo regroupé toog di waxtaan seen biir. mu mel ni dara xewloon te fekk liñ leen dénk ci ay dossier bu ñu taxawee rek da nga naan ñii tey ñu rey nit. d'accord euh, papa am na solo euh, fi ñuy dugaat rek dañuy dem euh, ci nga.